mbokk yi asalaamaaleykum daleen nag jàmm ci seen euh, spécial information sportive du jour te yemoo fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai 2024 ñu tàmbali ko ak Mbaye Diagne mi nga xamante ne mu nga fële ca Al Qadisiyah kon nekk ca Arabie Saoudite moom Mbaye Diagne nag daal dina ubbi euh, kon li nga xam ne mooy score bi waaye tamit euh, daal di rek am lu toll ci ñaar fukki but ak ñett ci saison bi ginnaaw nag bi nga xamee ni moom Mbaye Diagne nekkoon fi kon international sénégalais di sax wut amaat sélection ci 31e journée bi dafa kon doublé 30e journée bi nag dafa daal di am euh, triplé ci D2 euh, saoudienne bi nga xamante ne mooy euh, Al Qadisiya moom nag daal nañuy validé li nga xamante ne mooy seen ticket pour yéeg ci division élite Mbaye Diagne nag di meilleur buteuru club am daal nay briller beneen yoon ginnaaw nag kon biñ doon amal ab ndaje ak Al Najma jëm ci fanweeri bëccëg beeg ñaar ci li nga xamante ne mooy championnat bi attaquant sénégalais bi daal nay dugalaat beneen yoon daal di permettre nag équipe mu jël avantage bi ginnaaw bu ñu footballé rek lu toll si juróom-ñaari simili daal di mëne 1 bi à ci bit boobu sax la ñu rek ak euh, fexé ba moom Mbaye Diagne kon score bi wala total bi yom ci euh, ñaar fukki but ak euh, ñett ci ay réalisation ci championnat bi ci saison bi nak dal di fexé bu baax baax ba équipe bi di Al Qadisiya daal di nekk ci première division war faa mën a yéeg nag bi mu amalé li nga xam moy montée bi muy réussite majeure nak pour club bi nga xam dina yéeg kon ci élite pour la première fois depuis saison 2020 2021 Euh, dañuy wax ci football ba tey gi mbokkee xarit yi ak Premier League bi yoon euh, Premier League nag buñ ko waxee euh, Chelsea la ñuy waxtaanee moom mi nga xamante ne kon moo gañee ci kanamu Brighton daal di jël juróom-benneelu place bi ginnaaw nag bi ñu gañee ci biir Brighton ñaari bal ci benn ci kon rek mercredi bi ginnaaw match retard bi doon jëm ci fanweeri ci Premier League bi Chelsea nag ba léegi kon mën nañ bi ñu jëlee juróom-benneelu place bi toog fa mu mel nag fi mu toll nii am nañu wërsëg bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne waa Chelsea aussi ginnaaw nag bi ñu commencé di tegale ay victoire euh, ñoom ñooy nag bi xamante ne ñooy euh, kon xale yi Mauricio Pochettino euh, nag kon ñaa ngi enchaîné seen ñeenteeli victoire consécutive ci Premier League mu nekk nag loo xamante ne nemmeeku nañ gëj nañ koo nemmeeku ca septembre octobre ci année deux nag bi ñu demee nag daal di ci Amex Stadium ci mercredi quinze mai ci match en retard bu trente journée ci kanamu Brighton ñaari bal ci benn mu mel nag sax Nicolas benn yoon ci kanam ñi nga xam moom lañ duppee euh, Seagulls yi euh, kon ci wàllu gox mën nañu wax quatre-vingt-dix minutes daal en tout tiituñu si ndaxte Cole Palmer moo ubbi euh, kon li nga xam mooy score bi ci trente-quatrième minute de jeu ci kon ñaareelu pàcc bi Christopher Nkunku daal di ñëw rek doublé li nga xamante ne mooy mise bi ci kon passe boo xamante ne ki ko jox mooy Malo Gusto ci soixante-quatrième minute ginnaaw na ak carton rouge boo xamante ne kon waa Chelsea am nañ ko football à dix ki ko jël di Reece James ci la Blues yi di Chelsea ki ko dugal di euh, Dani Welbeck ci quatre-vingt-dixième minute Euh, dañuy dem ci beneen championnat mbokki xarit bi pa liga lay doon ak euh, kon ki nga xamante ne mooy Pathé Ciss di international sénégalais ñoom nag ñoo gagné ñi nga xam ne mooy waa Granada daal di assuré quasiment seen maintien ci euh, kon liga Rayo Vallecano nag dañuy xaw a nooy tuuti ndax partenaire u Pathé Ciss yi bi ñu assuré seen maintien ci li nga xamante ne mooy liga bi bi ñu dóoree Granada ci bi deux buts à un Rayo Vallecano nag daal di nay am une seconde boo xam ne métti lool Rayo Vallecano nag daal di am benn deuxième part saison boo xamante ne moo xaw a bu njëkk bi ndaxte eh, ñi nga xamante ne mooy xale yi eh, Inigo Pérez yi nag daal di nañuy eh, kon liggéey bu baax a baax ngir gën a jege li nga xamante ne rek mooy kon maintien bi ginnaaw kon bi ñu doon jongante ak waa Granada mekkat la woon jëm ci nag fanweeri bëccëg ak juróom-benn bi mu des rek ñaari journée ci li nga xam mooy Liga bi club madrilène bi nag daal di nay nag kon assurer présence am ci élite bi année prochaine ginnaaw bi mu dóoree kon ñi nga xamante ne mooy Rayo Vallecano ci kon stade bu Vallecas lañu ñu kon ñi nga adversaire un but à zéro deux journées nak mo ci championnat comme ko partenaire kon six points d'avance ci ki nga le premier relégable de euh, kon euh, mu euh, égalité de points deux confrontations directes yi nga avantage bi day jëm ci Rayo Vallecano nga différence de but ñu ni Florian Lejeune ak Jorge de Fruto ñom nak kon équipe bi nga Rayo Vallecano nga xam dañ leen réduire à 10 juróomeelu euh, kon euh, simili bi rek ginnaaw bu ñu expulsé ki nga xam ne mooy Oscar euh, Trejo Euh, ca France lañ jëm mbokk xarit yi Ligue 1 OM nag dafa mel ni nag ay chance am pour euh, vraiment championnat bi njeexital bi baax moom nag da di koy mujjee ni kuy tàggu euh, tàggoo ci chance yi nga xam ne amoon na ko ngir dem Europe li ñu mën a xam nag ci saison bi bi ñu doon déplacé wu ca stade bu Reims mercredi ci match ci fanweeri bëccëg bi ak ñaar ci journée bu Ligue 1 Marseille nag zéro daal di nag gisoon li nga xamante ne mooy espoir ndaw yi nga xam nañ ko am ngir mën a dem fële ci Europe qualifié Europe nag daal dinañ mel ni nekk daal dinañ nax saay mercredi Olympique de Marseille bi nga xam ne def mooy euh, kon euh, match muy succédé mën nañoo jàpp ni rek ñi ay jafe-jafe bu baax baax après élimination bi nga xam ne am nañ ko demi-finale bu Ligue Europa Atalanta de Bergame moo leen euh, kon rek euh, éliminé mu nekk mission euh, plus que raté ñi nga xam nag mooy kon xale yi Jean-Louis Gassé malgré la présence su Pape Gueye Ismaël Sarr ci 11 de départ bi ak entrée wu Iliman Ndiaye ci li nga xamante ne mooy minutes yu mujj yi nay dem ci stade bu daloon ak défaite 1 but à 0 su nekkee Marshal euh, Minesti euh, daan nañ koy bañal bi pour hors ci cinquième minute bi bii contre son camp bu Chancel Mbemba ak Yehvan Diouf euh, kon ñoo tax ba Marseille daanu bu baax a baax daal di rek daal di nërmeelu ci loolu olympique de marseille bi nga xamante ne daal amoon ay dessin ci loxoom mënoon a xool fan lay teg tànkam ngir mën a qualifier ci coupe d'Europe ñoom kon daal dinañuy def mauvaise opération opération bu bono bono bon sax ci li nga xamante ne kon mooy bëccëg boobu noonu tax ba kon ñi ngi ci juróom ñetteelu place bi ci classement bi am ñeent fukki poñ ak juróom-ñaar club conseil bi nag dana kon rek compter ci euh, résultat favorable dimanche bu bëggee rek qualifier ba léegi ci Europe nag day jaar ci liggéey bu baax a baax ci seen côté ngir fexe nag gagner match bi nga xamante ne mooy dox si diggante euh, Marseille ak euh, Havre AC ci euh, li nga xam ni moo jëm ci bëccëg bu mujj bi. bu jógee ci loolu mbokki xarit yi football la ñuy wax waaye beneen football muy football boo xam ñu ngi koy def ci wàllu plage di euh, kon beach soccer attaquant bu mbaaw bi euh, euh, Ba di yëngu ci wàllu beach soccer kon ginnaaw trophée Ibrahima Ndiaye nag li mu bëgg mooy gañawaat ko Assane Ba nag attaquant bëreet bu mbaaw beach soccer nekk révélation beach soccer fii ci Sénégal meilleur joueur ak meilleur buteur bu trophée Ibrahima Ndiaye bi nga xam ne ñu ngi ko amal ci bi lébu yu mbaaw yi nag championnat bi nekk chaque champion en titre Ngor Almadi Assane Ba di kenn koo xamante xamante ne mën nañu wax ne valeur sûre la ci li nga xamantene club bi mën na compter pour remporter championnat ak coupe du Sénégal saison bi moom nag Assane Ba judd euh, ñaar fan ak juróom benn ci weeru avril 2004 ca Mbaaw Assane nag commencé na football ci plage euh, balaa muy sax def leneen euh, pour lui moom nag dafa jàpp ne rek kon moyen la boo xamantene manam maanaam foo ko jàppee jàppee ko sax tàggat yaram avant dara parce que passion la ci moom ci xam nga xam ne ni ci plage lañ dëkkoon moo tax dañ fa daan dem di jouer petit camp ak yu ni mel ci loolee sax lañ ko proposé mu ñëw jouer beach soccer waaye hésité wul benn yoon euh, noonee la euh, kon rek nekkee jouru beach soccer moom Assane Ba muy fàttali ba tey ni rek euh, kon def na ay sacrifice yu bëree bëree bëri ngir mën a nekk kon beach soccer professionnel mu mel ne nag tàmbali bi bu sukkandikoo ba tey ci Assane Ba moomee mooy bu jafe la woon parce que xamul woon li nga xam mooy règlement yi mais nag bi mu ci ci nekkee bu baax a baax dem na ba adapté wu na mu nekk nag loo xamante ne xaw naa mën a yomb loolee xam na ko moom nag nga xam ne juddoo na ca Mbaaw nekk fidèle club bu Mbaaw que foofu la débuté carrière en ci 2021 tay di nak même bu gagné gañegul ben trophée individuel ci championnat bi euh, ci compétition yi nga xam moy coupe du Sénégal waye nak amna euh, ay euh, kon rek cour tournoi yu bari super coupe ak bis ko yoo xam ni kon rek bokku na ci ak clubum daal di gagné coupe du Sénégal en 2023 si ce bobu nak taxul ba mu am kon ay souvenir yo xam ni bu koy fàttaliku day am lu ko xaw metti moy nak li tax ba deful doublé ci saison bi ñu wessu gagné li nga xamantene moy championnat bi attaquant bu mbaabu bis jëkkër nag euh, kon daal di ne amul benn secret euh, pour rek euh, am succès liggéey ak di topp li nga xamante ne mooy ndigalu coach bi buñ sukkandikoo ba tey championnat bi nga xamante ne kon dina démarrer le 18 mai numéro 10 bu Mbao Beach Soccer moom nag nee na confiant bu baax a baax objectif bi année bi mooy gagné def doublé remporter championnat bi ak coupe du Sénégal marga nag jafe-jafe yi nga xamante ne kon dañ koy am moom attaquant bu vingt ans bi nag li mu wax rek mooy découragé wul benn yoon objectif bi mooy nekk kon benn jour footballeur beach soccer euh, professionnel. ginnaaw bal bu weex bi mbokki xarit yi dañuy dem nag ci euh, wàllu làmb tàggat yaram Sa Thiès nag euh, moom euh, xam ne ni ba léegi pareegul pour bëre ak ki nga xamante ne mooy Franc la mu xam ne mooy bokkul ci sama plan de carrière ci jamono ji alors que kon ginnaaw bi mu génnee ci làmbam bi nga xamante ne moo doon dox ci digganteem ak Eumeu Sène moom nag Sa Thiès kon lu bëri ñi ngi ko doon tànnal adversaire di ko jox ki nga xamante ne mooy Franc mbëru ko parcelle boobu waaye nag mu mel ne Sa Thiès nag dafa rek daal di pousse bu baax a baax ki nga xamante ne moo daan Bombardier yàggul dara ndaxte dafa jàpp ni euh, kon heure bi jotagul ngir mu accepter combat boobu noonu euh, bu jotee dinañu bëree di ay kàddu ko Sa Thiès waaye nag li ñu rek war a jàpp buñ sukkandikoo ci moom ba tey mooy nekku fi di bëri rek chaque jour ak ñi nga xamantene mooy liteur yi nga xamantene ñoo bokk ci catégorie ndax dafa bëgg a xool ci kanamam ngir dem ca kanam euh, waaye nag euh, jamono ji li muy jàpp di ko xamal fran mooy ni moom fran bokkul ci plan de carrière am euh, loolee le expliquer moom mi nga xamantene mooy raku balagay bi di sa ties te kon doon fi jongante ëmma seen dire ci ab defaite ñuy xool nag fan lay relancer woo moom sa ties en tout cas li ñuy jàpp mooy ni que kon du bëree gum pour le moment ak kii di fran mbokki xarit loolu la foon ci xibaar tey yemoo fukki fan ak juróom-benn xibaar tàggat yaram ci La Dépêche TV di leen dig daje ëllëg incha allah si neen jotay xibaar di leen ñaanal kenn dal ak